seeti professeur Malick Ndiaye di wax ne waa wattu Sénégal Ablaye Wade moo njëkk wax waxeet Macky Sall wax waxeet ñoom nag ñu ngi bëgg wax wax waxeet ndax Malick Gakou ñu ngi koy bëgg falaat trois mois moom professeur Malick Ndiaye nee na loolu du xalaatu intellectuel te du ko nangu tey du ko nangu ëllëg Malick Gakou un mois nañ ko mayoon un mois dans une semaine day jeex nga dem toog keneen ñëw ndax coordonnateur mouvement wattu Sénégal ndomba tànk la boo xam ne ba ma ngay dee da lay topp kon nag na ñamal ñeneen ñi ñam Malick Ndiaye professeur la ñuy seeti intellectuel la ñuy seeti Malick professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi professeur Malick Ndiaye intellectuel bu mag bi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw. Eh, eh, eh. macha allah dëkk bi yow la soxla. yow la ñu wóolu. voilà voilà. yow la ñu yaakaar. waaw professeur yow la ñuy déglu. waaw waaw. kontaan naa. waaw. marché bi amoon keroog ba sama léeg di wéer ci laa doon wax dëgg yàlla gisatuma dara. waaye léegi yàlla def na yëpp baax na. bon démocratie bu ñu koy wax dañ koy doxal. kuy Malick Gakou. kan mooy Malick Gakou dañoo toog ne ñun coordination bi kenn da koy yor par weer bu jeexee ñu falaat keneen su ma ñemee Malick Gakou ñam Pape Diop ñam Omar Sarr ñam Mamadou Lamine Diallo ñam Sonko ñam Mout Bar ñam ñëpp ñam bu ñëpp ñamee mu ñam normal waaye Malick Gakou ñu jox ko un mois mu ne dee dañ koy renouveler trois mois fu ñu ko teg Ablaye Wade waxoon waxet ñu bàyyi mu jàpp Macky Sall wax waxet ñu bàyyi mu jàll waaye ñun ñi nga xam ne ñoo doon weer ñi wax waxet ñu ngi commencé wax waxet Malick Gakou Malick Gakou du xam-xam boo xam ne da ko yor rek war a continuer ñetti weer fu ko teg li mu bëgg ñun moom la ñu bëgg ñoo ko njëkk a jiitu ci politique yéen a may dégg kon moom ci boppam bu ñemee buñ ko naroon tollanti sa dafa waroon taxaw ne lii du ma ko nangu parce que un intellectuel doit avoir des bagages intellectuels et réfléchir en tant qu'intellectuel te accords yi nga xam ne moom na ñu signé di ay points yoo xam ne dañ ko lëkkaloo tëgg ko dañ ko war a respecté. dëgg la dañ ko war a respecté parce que tamit ñu nommé na coordinateur mouvement Wattu Sénégal loolu dafa neex. ci rajo yi yaay wax. ci télé yi wax. ci journaux yi yaay wax. conférence yi yaay wax. ñëpp di la dar ñu xam ne ne kii kat moo jiite intellectuel yi. est-ce que xam nga ne tubaab yi tubaab yi xamuñu coordinateur ah. ñoom xamuñu ay coordinateur boo demee France tey. dañ naan le chef de l'opposition du Sénégal mais Malick Gakou duñ suñu chef ñun niñ koy waxee moom mu neex ci moom ñun tamit noonu la ñu bëggee tamit tubaab bi di wax ne le chef de l'opposition Malick Ndiaye waaw man nag sama wax neexu ndax man dëgg rek laay wax dëgg rek laay wax lii Malick Gakou di def nii teguñu ko fenn watu Sénégal nag buy tas nag ci lii lay tasee ah. te man du ma nangu ñuy jël Malick Gakou di ko teg suñu kaw Malick Gakou bu dee sañse la dàqul sañse kenn ndax man fi ma génn nii gisuma kenn koo xam ne bu dee sañse la rek loolu lañu wax bu dee sañse la bu dee sañse la nit day sol lu jot nit day sol lu jot maa ngi nii sama costume samay loxo génnul ndax nit day sol lu jot yéen a may dégg nit day sol foo taxaw ñu xam ne kii mooy le coordinateur Malick Gakou bu dee taar la fan la ma dàqee gënu maa rafet yéen ma may dégg xool leen rek xool leen rek li ma sol lan moo ci nekk loo xam ne waruma taxaw représenté Sénégal lu tax Malick Gakou bëgg mbëgg bu affaire bi am na lu nekk ci biir loo xam ne ko kon Malick Gakou dafa war am xel moom ci boppam bu ñu ko waxoon dañu lay tollanti ñaari weer moo waroon bañ ndax man nekkoon naa présidence j'étais le conseiller technique du président Macky Sall bu ñu jubawul dama ko fa bàyyi dem man ma yàggu toj pale man suma musaan dugg pale sañ sa gendarme yi ñëkk tóot ñëkk tóot suma musaan romb sax secrétaire ñoo Malick Ndiaye Malick Malick Malick Malick mu demee kontaan ah, nekkul ci ay xarit la. mana Malick wàccal Malick yeeg intellectuel baa ngi nii. Malick wàccal Malick yeeg intellectuel baa ngi nii. Eh, Malick wàccal Malick yeeg intellectuel baa ngi nii. jiite yaa bari xam-xam yaa bari xam-xam yaa bari xam-xam yaa ñuy jiite yaa bari xam-xam yaa mën a sañse yaa ñuy jiite xam-xam yaa mën a gis yaa neex bët yaa leer le yaa baax le yaa leer le yaa mën a sañse bari xam-xam yaa mën a sañse yaa leer